xanaa di leen sant rek ni nañ ci moy ndax lii di takk masque tey moom rek fi des moom rek moo fi gën mën a génnee mbas mi ci mu gënee gaaw te mën na nekk nag nañ ko gëm ndax lu tax mu mën a nekk mooy mbas mi doomu jàngoro bi fu muy jaar pour dugg ci nit nee nañu ñaari yoon kese la ñaari yoon yooyu nee nañu benn bi mooy nit ki nga xam ni dafa am doomu jàngoro buy wax wala buy tisooli wala buy saqat doomu jàngoro bi day génn donc day génn nag fekk ne tàkk nga masque dootul génn kon bu génnul ci masque bi lay yam dootoo wàll keneen donc masque boobu am na solo yow it bu fekkee ne da nga takk masque te même fekkentee ni amuloo keneen koo xam ne mi ngi saxat buy ñëw du egg ci yow parce que yaa ngi tëj bi tëj bakkan bi te du fa jaar wax ni tamit doomu jàngoro bi ñetti bunt rek la mën a jaar pour dugg ci ki nga xam ne mooy doomu aadama bi mooy mu jaar ci bëtam mu jaar ci bakkanam wala mu jaar ci gémminam amul ñeenteelu bunt donc ñetti bunt yooyu ñaar yi masque bi daf koy tëj donc loolu am na lu am solo tey mooy yoon yi nga xam ne sax moo gën a bëri ndax bët bi taxawul mu bëri lool loolu moo tax daal tey ku ñuy dimbali ku ñu bëgg a dimbali dimbali ñu ci takk masque parce que moom mooy sànni tàccu gi tey bu fekkonte ne Sénégal yëpp manqué nañu ñëpp laa wax sans distinction kenn manqué wul ñëpp takk masque pendant quinze jours jàpp nañ ni feebar bi dana fi jóg ndax ci biir quinze jours yooyu wàllante du am. ndax ku takk masque doo wàll kenn su fekkee ne takk nga masque wàlloo kenn ku takk masque tamit mën nañ la bañ a wàll fekkee ne takk nga masque kenn wàllu la fekkee ne wàlloo kenn kenn wàllu la loolu bu amee fukki fan ak juróom rek mbas mi dafay daal di jaar fay.